ku sopp Sëriñ Fallu ku sopp Sëriñ Fallu la dama def TikTok ma dem YouTube seetaanu ko mais Sidi Sidi ñu lay ziar man dama dama waaru la quatorze la woote. laay laay non non jël leen ko rek. waaw yaa ngi engagé wu da ngay engagé wu. non la quatorze non non la quatorze. la quatorze mais mais Saint-Valentin spécial Saint-Valentin. voilà daa mu joxe wala. ak suba teel. waaw. insister Obatel de retour. insister si insister si. Sidi de retour. waaw. incha allah loolu laa bëgg rek la. waaw. moom mën na toog ci mën na toog ci ASC bi rek. Thank you. amiin yaa rabbal aalamiin yàlla yàlla ba jàmm tam solo ji jàmm amiin ci kaw ci kanam soo jëlee dox bi yow sunu ci dem sax da lay sagoo di la ci dogoo voilà da lay sagoo di la ci yow wil bébé ba yow ci kaw ci kanam wil bébé ba ma jàll ma jàll ne ne waay ne ko mu

mais man nag tey sama ma tere ah. ma xam ah. ne boo nee ba rek lébu yi jóg ma xam ne a dajale mooy maam Seydina sunu soppe sunu xarit sëriñ Pape Seck Touba Couture loolu suñ bàgg la ñu daw rek Euh, comme ni ma leen ko waxee mbokk internet tey nag ñu ngi fi nga xam ne rek euh, mooy yoo fi nga xam mooy kër Pape Seck Touba nga xam ne rek Sidi Diop kenn ko présenté si réew mi Sidi nuyu nañ la maa ngi lay fay mbaa yaa ngi am jàmm bu baax alhamdulilah tey nga ñëw wu sa xarit koo xam ne sa diggante moom ak lépp xam nañ ko ndax ku ñëw sa place bi ngay tëggee rek fekk ko fa dëgg la tout d'abord maa ngi nuyu waa Sénégal di nuyu monde entier di wax nit ñëpp bis bi moom fekke woon nañ ko daaw ren ñu fekkewaat ko yàlla nañ ko fekke at yu bari comme li nga wax rek Pape Seck moom sama xarit sama papa la ah. ay jabaram bëgg ma ay frère am bëgg ma ay xaritam bëgg ma waa ADES mag ñëpp bëgg ma su ma xewlee mi ngi ñëw donc c'est très normal bu xewlee ma ma bàyyi sama yitte ñëwal ko loola waral sama teewaay bi macha allah comme ni ma ko waxee appel ah, Seydina Limamou Laye aji boo daal leen bii yoon mu nekk 44e 144 di édition Sidi Diop bàyyi lépp lu mu jaar bu ñëw wuy si ki nga xam mooy Pape muy teral xarit àndandoo ak màggal bés bi nga xam ne bés maamam la waa nit bu nekk bisam laam bokk maa ngi profité di wax euh, lépp loo xam ne ñaan nañ ko fi rek yàlla nañ ko suñu borom defal di profité ci occasion bi ku ne xam na ne jamono ji dëkk bi yëngu na ñu ngi ñaan ci barke appelu Baye Laye yàlla na lépp delluwaat ci jàmm lépp dal suñu borom def fi jàmm def ko ci diine bi ci sport bi ci ci tarixa yi def ko ci politique bi def ko ci lépp daal maa ngi ñaan yàlla na jàmm bu baax a baax a baax ci dëkk bi macha allah sa diggante ak lébu yi lan la ndax ñi ñu ngi naan magu lébu ñoo nekk sa ginnaaw ñoo la samp di ku nekk joxe sa xarit sa diggante ak lébu yi lan dañ ma bëgg rek dañ ma bëgg rek moom ku ne xam na ni dañu nekk askan boo xam ne lépp looy wër ci gor rek mi ci ñoom diiñ nañu baax nañu mën nañu sax bëgg nañu doomu aadama te fii nag ñu nekk ni nag yàlla dafa dogal ne nag parc li parc libuy la ku fi dëkk ñoo la xàjjin donc nag ci la nekkaay dëkk ah mu nekkoon seen jamono ak ay maami maam ba tey ji ñu ñëw dëkk fi ci jàmm wax dëgg yàlla ñu yaatal ñëpp nag donc ñooñu kenn amul seen moo tax maa ngi leen di wax ne nañu ma xaar maa ngi leen di waajal benn morceau bu baax boo xam ne dañu ma def ci album bi pour delloowaat ci njukkal lébu yi delloowaat ci njukkal laay comme ni nga waxee say xarit bu yàggul dara di la jaalewaat encore une fois sunu yaay ji nga xam mooy Mame Akida Diouf Diaga na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana fii daw ñu gis la mu dëddu àdduna nga bàyyi lépp sa activité yëpp nga annulé ko dem taxaw ki nga xam ne rek mooy sa sa frère ak sa xarit Wally Ballago Seck dem fi nga xam ne mooy ci rob bi delluwaat dellu kër Wally Ballago Seck lan nga wax sa diggante ak Wally ah loolu c'est li ma war rek laa def li ma war laa def euh, maa ngi ko koy jaalewaat di ko masaw bu baax te ñaanu ma ko yàlla xam naa ni loolu bu ma daloon nit ñaanu ma ko yàlla yàlla yéex kenn du ko fa jiitu donc sama wareef rek laa def bu ma sax di ci arriéraat Eh, waaye sama wareef rek laa def maa ngi koy masawu encore une fois ko loolu yàlla na fi gëj te moom si defit yàlla may ko xoluk muñ te guddal ay fanam loolu macha allah amin amin mooy boo gisee ñenn ñi nekk ci internet bi comme ni nga ko waxee di ko di ko naan waa waru fa woon dem ndax jaawale showbiz ak li nga xam ni mooy xolu doomu aadama waaw mais ñooñu moom xam nga tu peux pas répondre loolu moom ay détails la doomu aadama boo nekkee ci dëkk da xoolal li la war rek ak say kilifa yu baax yi ñu doxee nga di ko doxee mhm. li ma war def naa ko ànd ak suma staff suma label suma xarit suma ay doomu ndey suma ay mag mhm. suma producteurs li ma war ma dem defi ko te bi ma fa eggee moom mi ndayu mbi gi wax dëgg neex yàlla il m'a bien accueilli donc ñu waxtaan kap foore bokk nday ak bàyyi mhm. donc loolu loolu moo ma intéressé mais quant à yeneen yi c'est des détails quoi te mën nañ xaar quoi mais àdduna moom li fi ñu kanam xamuñu ko yàlla mën na def lu nekk yàlla mën na def lu nekk mais comme que instant yi moom ñi ngi ci ñi ngi ci ñi ngi ci euh, appel bi dañu dañu continuer ci appel bi léegi nag beneen yoon bu ñu waxee ci affaire show bi loolu dinañ ci gën a yaatal incha allah loolu du dara maa ngi leen di jaajëfal merci beaucoup